jërë ngeen jëf mbokku feeñal jaajëfal nañ leen bu baax a baax tey rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñu yam mbégte saa su nekk di leen jukkil xibaar yeeg li gën a fës ci biir réew mi ñu ñëw ànd ak yéen ci coow li doxoon diggante Mansour Faye ak aminat Touré ñu gën ko xam ci Mimi Touré coow loolu nag euh, mi ngi teere ji woon ca tribunal grand instance bu Ndakaaru li ko waraloon moo di kaddu yu Mimi Touré yëkkati woon jëmale woon ko ci Mansour Faye lu ñeel xaalis bu ñu luubal ñeel li nga xam ne moom moo di cour des comptes moom Mimi Touré nag euh, comme personnalité euh, politique bu nga xam ne dafa rek daal di toogoon wax ci lu ñeel boobu lépp dossier waaye itam samp ab laaj ana xaalis boobu fan la dugg euh, ki nga xam ne moom moo di Mansour Faye mi ñu dénkoon wàllum dem ak dikk ci jamonoy président la république Macky Sall jàpp ne dañu ko diffamé rawatina ci xaalisu li nga xamante ne nii moom moo di jamonoy Covid 19 xaalis bu nga xamante ne nii ñu bari ñu ngi laaj ana fan la jóge fan tax ki nga xam ne moom moo di di porter plainte Aminata Touré euh, plainte boobu nag mi ngi ko xaati moom ci wàllum diffamation manam tuumal nit lu nga xam te ne ni dara amu ci plainte boobu ñu bari ñi ngi doon xaar lan mooy nekk ndaw taxoon ci ay fan ci ginnaaw ñu jotoon am ab audience ca tribunal waaye verdict ba wàccul woon benn yoon tey nag la ñu daal di jot ab xibaar ne verdict ba wàcc na waaye dafa rek daal di am lu ci bett sénégalais yu bari ba ca njëkk moom moo di lépp lu nga xam te ne ni moom la Mansour fay doon toppee Aminata Touré daal dinañu ko ci relaxé de bonne foi maanaam amul dara lu ñuy toppee Aminata Touré mi nga xam ne moom la Mansour Faye plaintoon ba ca topp moom moo di lépp lu nga xam ne frais avocat la yu Aminata Touré defoon ci bi lépp dossier bi maanaam jël ay avocat ngir rek doon défendre boppam kile di Mansour Faye moo koy mujjee daal di delloo ak ki nga xam ne moom moo di Aminata Touré ndax yoon toppeewu ko dara waaye dañoo gis ne li nga xam ne moom la ko Mansour Faye di toppee mu di diffamation kile di Aminata Touré mësul diffamé Mansour Faye mu nekk lu nga xam ne nag fi ne ab débat bu nga xam ne ñëpp ñu ngi ciy wax jàpp nañu ne sax kile di Mansour Faye dafa mujjee daal di ridicule ci kanamu askan wi waaye ndax yoon du mujjee toppaat ko ci leneen moom moo lu ñeel bi rapport nga xam xamante ne dañ ko cee dal di jàpp ne rek da koo dal di covid 19 bi waaye itam lu ñeel ki nga xam ne moom moo Aminata Touré ndax du jaaree fii rek dal am li nga xamante ni moom moo position bu ferme par rapport ak kaddu yi nga xam ne moom la doon yëkkati beneen bi nga xamante ni moom la sénégalais yi remarqué itam ci dossier mon moo séparation des pouvoirs am na waaye justice du Sénégal justice la bu nga xam ne dafa tëddee njaaxaanaay ci jële jamono dem nañ sax bay wax ne ay weer ci ginnaaw bu kon Mansour fay moom moo daal di plainte ndax mbir ma dina demee nii en tout cas li nga xam ne moom moo di dossier bi dal dinañu koy rek teg ci table ji ba noppi xaatim lu nga xam ne dañu ko def en faveur de Mimi waaye lépp dafa jaar ci yoon ndax gis nañ ne ki lee di Mimi Touré mësul diffamé Mansour Faye mbokk yi jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci feeñal wéy leen di ànd ak ñun ci suñu ay programme bu leen fàtte abonné activé seen i cloche de notification ngir ngeen man di am suñu vidéo à temps réel jërë ngeen jëf ñu yendoo ak jàmm